barki démb Ndiaye rek maa ngi dégg ci journal yi sax ci dëkk bi ñu dafa am ay police yu fi tey nit waaw te lu lépp seen ñàkk bi yar rek moo ko waral dañoo yërut police yi Mbàkke moom dañoo yërut moom seen njilif nekk tamit euh, moo leen euh, lam war def la leen def la wut yaa ngi dégg hmm. xam nga ne jàpp nit dóor ko ba mu dee teewu fenn nit ku nit lu mu def boo ko jàppee lu mu mën a def rek boo ko jàppee ko war a teg ci yoon waaye waroo ko jàpp di ko dóor comme nit nit nit nit muy muy dee loolu teguñ ko fenn te ñoom ñoo ko rey teguñ ko fenn fenn police Mbàkke li ñu def teguñ ko fenn si euh, doomu jaamu ji ñu rey mais bu ñu ko fekkoon mu rey nii sax waruñ ko jàpp di ko di ko dóor amuñ si droit yaa ngi dégg. Mm-hmm. dañ fen ñoom ñoom yoon nañ fi nekk waaye waruñoo xeexal seen bopp di def ay yooyu waaye nag fii nag man gëm naa ne dëkk bi dëkkub loi la. képp ku fi def lu. am nga yaakaar ci ne mbir yi dina jaar ci yoon. ah du yomb si ñoom de du yomb de parce que tamit dañoo rëy nit. ku rëy nii fii dañ lay teg si yoon dañoo rëy nit nañ ko nangu dañ koo rey ñoom ñoo ko nangu ñoo ko def. deuxième fois ñuy rey lii mooy deuxième fois bi ñuy ñu koy ñu rey nit si commissariat bu Mbàkke bi te loolu dafay war a jeex nit ñi duñ ay xar duñ ay mala nañ respecté doomu aadama yi police. yaa ngi dégg fii dëkk bi loolu neex waaye def ay ASP dañuy taxaw si dëkk di contrôler teguñ ko fenn lépp commissaire leen ko bàyyi ñu koy def tegul fenn ASP yi dañuy contrôler dëkk bi def loolu neex borom jakartaay ku génn ñu laaj la 1000 francs ak téeméer ordonnance ba ordonnance commandement bi wax naa ko benn jour te loolu tegul fenn nit ñi nag sonn nañ yaa ngi dégg Macky Sall nag nag dégg li may wax nga saafara ñu waa Mbàkke sonn nañ lool ci dëkk bi fii police yi loo neex la ñuy def ci dëkk bi jàppewu nit ñi ay ay nit ay bàyyi ma leen jàppee te loolu tegut fenn. gën a renforcer sécurité bi gën a renforcer sécurité bi ku fi mën a toog liggéey toog liggéey ku mën toog ñu jëlee indi sa morom nit ñi duñ ay bàyyi ma bañ jàpp nit ñi di dóor ak toroxal ku ci nit ku ci defut yoon nañ ko jàpp teg ko ci yoon. waaye nit amoo droit di ko dóor di ko saaga di ko toroxal loolu moom du ko nangu te sama bakkan bi tim laa ci gar mhm. tooñ lu ma nag tooñ lu ma te ànduma ak tamit kuy kuy tooñ waaye nañ jaar yëfi ci yoon rek.